jërë ngeen jëf mbokk internet yi Idrissa Seck nag ba xam mën ñu ko jàppee ak ku désés ku désespéré nag buñ gisee na mu demee ca kër kii di Ousmane Sonko ngir nag mu dalal ko ñu mën a waxtaan en mode talibé suñu ko a waxee noonu ci fàttali nag moom mi di Ousmane Sonko rek ab entretien bu nga xam ne am na ko ak groupe bi lee di Walfadjri ab entretien exclusif nag moom ci la ñëwaatee daal ci circonstances yi nga xam ne ci la toogee waxtaan ak ki nga xamante ni moo fi nekkoon ancien premier ministre di jamono ji jiital parti bi di réew Idrissa Seck bu ñu sukkandikoo ci ay kàddum sax moom Ousmane Sonko mel ni ni eh, kii di Idrissa Seck daal dafa xaw a forcé sax ngir mu mën a toog ak moom waxtaan ak moom waaye nag bu nga xam naa bu nga xam ne moom njiit li daf ko bañaloon sax li nga xam ne moo di dalal ko ci ay kàddum moom Idrissa Seck nag finalement moom Ousmane Sonko. Eh, gannaaw ba delsi na ngir dalal ki nga xam ne moo di Idriss Seck waaye nag ca circonstance rek moo waral seen toogaay boobu am bu ñu sukkandiku ci moom ci ni ma ko nettalee nag nee na le 27 bi la ñu weesu le 27 mars daal si la. kile di Idrissa Seck eh, daal di eh, doom foofee Eh, ca këram daal di fëgg buntam nag ca fajar teel sax laata ñuy yegg ca la nga xamante ni moo di xëdd ak eh, jullim fajar ba ñu wàcc xëdd daal eh, ci ñu ñuy waxee le kii di Idrissa Seck daal di fëgg ca bunt këram moom usmaan Sonko nag mu ne gardien ba yëgalu ko soxna sa ñëw fëgg buntam na ko Idrissa Seck moo nekk ci suuf nag yow la doon seet si ngir gis la loole jaaxal ko lool moom Ousmane Sonko nag laaj ba mu njëkk laaj boppam sax moo di kii di Idrissa Seck lan la fiy def heure bile jamono bile nga xam ne ñëpp ngi si seen i kër ak seen njaboot di waajal xëdd moom Idrissa Seck lan lay def li ci këram moom nag ca noonu rek la waxee li nga xam ne moo di gardien bi ne ko demal nga ne ko duma ko recevoir ndax mi mi dama tawa dama convalescent moom maire bu Ziguinchor loolu la waxee waaye nag moom nee na nag loole ba mu ko waxee gardien ba mu wàcc rek muy duggaat ci néegam ca la ko xelam yeddaat mu ne nag mag mu di kilifa la ko yëgati war na ko ñor lool ba tax heure bile muy jóg di ñëw fi file ci këram te nag su ko bàyyee noonu sax mu daal di dem mel na ni mbir mi dina ñaaw na ko daal di dala rek déglu ko ba xam ana lan moo ko fa andi noone ca la wàccaatee ca est-ce que dogaale gardien ba laaj ko animu mu ne ko nag kili di sekk mu ngi ca buntu kër ga abu jaada lal ngir jullee mu ne ko buleen ko bàyyi foofu bàyyi leen ko mu dugg ngeen dalal ko su ma jullee ba noppi dina wàcc ngir ñëw déglu ko teewlu ko ba xam ana lan moo nekk li nga xamante ni moo di ay yitteem noonu nag la demee moom Ousmane Sonko mu sukkandikoo ci ay ba tey ba mu wàccaate ca suuf nag fekk crédit di sekk nayu ko laaj ko mbaa jàmm mu ne ko jàmm ana mu laaj ko lan moo ko fa andi mu waxtaan ak moom situation réew mi tolluwaayu réew mi ni mu toll moo ko tax a jóg mu jël ay responsabilité nag ngir ñu waxtaanee ko seeti président waxtaan ak moom ñëw file ci kii di Ousmane Sonko tamit ngir mën a waxtaan ak moom waaye aussi woo ko ci tamit bu ko président invité li nga xam ne moo di fête 4 avril na fa daal di dem teew moom Ousmane Sonko ne ba ma ko déglu bu noppi ci la ko tont rek mbir mi daal xam ngeen ki nga xamante ni mooy xooña bo mi nit na ngeen waxtaan ak kooku ngeen nag mu bàyyi li muy def ni ñu jàpp di tëj ak yu ni mel bu ko defee rek jàmm daal dellusiwaat ci réew mi ci lu jëm ci karafil nag damaa nekk ci coalition buñ ci yeggee dinañ ci waxtaan waaye man mi la sama jëmm sax damaa tawat waaye su dul doon loolu maa ngi war a féete fële nekk ak ki nga xam ne moo di Idrissa Seck moom mbir ma benn lu ko naqari lool na ca lu nu mel gannaaw ba nga xam ne Ousmane Sonko nee na ki di Idrissa nga xam ne nag moo di carrière politique am yaakaar ne pour mu dellusiwaat ci politique rek turam moom Ousmane Sonko la war a utiliser waaye nag loolu moom mi di Idrissa Seck juum na bu baax a baax ndax euh, su fekkee ne moom nee na mooy chef de l'opposition kii di Ousmane Sonko nangul ko nee na ko bu fekkee yaay chef de l'opposition rek jëlal ndax ñun ñu le euh, daanaka loolee ñoruñ ñu te mosuñu ko jëw euh, ko dëkko di ko bàkkoo naan ñooy chef de l'opposition ku ko wax it yow la concerné ñun moom jàpp nañ ne chefuñ kenn kenn chefuñ ñu waaye Idriss Seck tamit indi na ay tontu na ni la kàddu yi Ousmane Sonko wax naqar na ko lool ba tax nag moom tamit bind na ak baraaxal dellu ci bu a baax ne la Ousmane Sonko di wax dara amu ci waaye nag jamono jëlee comme dafa nekk